Subhanallah suñu kilifa waaye suñu waajur moom mi nga xamante ne moom lañ doon xaar di Mawlana Cheikh Abdul ibn Cheikh Alfa Hamma sëriñ bi ñu ngi lay ñëw di la ziyaar di la tatagal waaye di la sargal ci sa bésu maam di mawlana ci sa bésu maam di yente la muhammad sallallahu alayhi sëriñ bi namoon nañ la sëriñ bi jàkkaarloo bi lu ñu yàggoon a bëgg la waaye lu ñu yàggoon na xaar la kon alhamdulillahi rabbil alamin bi la yàlla mayee gudd fan wér ak wérle ba nga dellusiwaat tey ci jotaay gii muy jotaay bi nga xamante ne sa mag sa kilifa sa sëriñ di Mawlana Cheikh Mouhidine Abdul Karim Alfa Samba Diallo bi nga xamante ne te boo ko tuddee rekk tur gi rekk présenté na boppam mi ci biir réew mi ak ci bitim réew turam yàgg na fépp ci àdduna gi ngeen ci wuutu moo taxit moom it ko fàtte mukk dañoo bëgg balaa ñoo tàmbali jotaay gi képp ku nekk ci tànt gi wala képp kiy dëgg suñuy kàddu ak foo mënta ñu sellal yéene yi jàng faatiha julli ci yéen Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu jàng fukk lixlaas ak benn benn bu ci nekk na ànd ak bismillahi rahmaani rahim buñ ci noppee ne julli ci yonent bi sallallahu ñu ñaanal ko yàlla yërëm ko yàlla yaatal bàmmeelam yàlla leeral tëruwaayam waaye yàlla yéege ko ci maqaama yi ci martaba yi gën a kawe ci martabay barzax yàlla mën na ko yàlla am na ko yàlla sañ nañ ko yàlla nañ ko yàlla defal kon ñu def loolu incha allah bu ñu noppee ñu jottali kàddu yi. kenn ku nekk mu jox la sa mission. mu jox la sa mission. nga doxal ko nga doxal ko. kon nag Alpha Xama dafa ne. kon Mawla Cheikh Xama dafa ne. mu ne état bi mu ne état bi. soo leen gisee soo leen gisee. suñ jógee suñ jógee. E, seen oto yi jóg seen oto yi jóg. yi jiitu motaar yi jiitu. E, force l'ordre yi jiitu. force l'ordre yi jiitu. garde corps yi jiitu. garde corps jiitu. soo e, soo gëmul. soo gëmee yàlla soo gëmee yàlla. da leen di nangul force da nga leen nangul force. soo nangul soo nanguwul. Eh, eh, soo nangul état soo nangulul état bi. kon nag kéefër ngay doon kon yéefër ngay doon. te yàlla jàpp la te yàlla jàpp la. jox leen. ñu ñu teg la si yoon ñu teg la si yoon. kon ku fi yàlla teg tey kon ku fi yàlla teg tey. di Bassirou Diomaye di Bassirou yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla dimbali. ak gouvernement bi yëpp. ak premier ministre am yàlla jàppale yal yàlla jàppale. ñu bëgg a yóbbu réew mi a fa yegg yal fa yegg ak jàmm. aywa di eh, ak ministre intérieur. ministre de l' eh, bi yëpp. ak état bi yëpp. Eh, mais nag. waaye nag. ah ñu ngi ngi leen di dénk ñu góorgóorlu ñu jàppale askan bi ah, fu ñu toll nii ah, wax ko moom na wax ko yombul soo ko waxee dañuy ne da ngay xas état bi da ngay sànni xeer sànniwul xeer de sànniwul xeer ñoom carte Seydina Mohamed la ñuy yore alfa hamma loolu la leen won baayam loolu la ko won mag yëpp loolu lañ yore woon waaye jamono moo ko laaj jamono moo ko laaj foog ñu dox ci foog ñu dox ci waaye nag eh, Bassirou Diomaye Bassirou Diomaye ak sa premier ministre ñu góorgóorlu ngeen góorgóorlu askan bi sonn nañu askan bi sonn nañu wóor réew mi wóor réew mi soo nekkee si néeg yu mag yi soo nekkee si taax taax yi ay déedéet suñ suñ ñoom si alfa xama néegu Mawlana si alfa xama yi. du sama si néeg yi eh, foog ne dañuy foog yenn information ñoo buy ñëw de. du jinne buy ñëw de. nekk. waaye da fi nekk. baay bi moo la fi teg. baay bi moo teg. maam bi teg la fi maam bi teg la fi. mag yi bàyyi la fi mag yi askan bi dañuy ñëw si yow dañuy ñëw si yow de. billaahi wallaahi billaahi wallaahi. su fekkee fukki nit ñoo ñëw ñëw ci bés moo ñëw ci bés. ku la koy jox ku la koy jox. ak diya ak diya. kenn lay doon. Eh, eh, neuf personnes yi neuf eh, personnes yi. uñu ma uñu ma sekere. uñul sekere. maa ngi jégalu maa baax a baax. uñul sekere de ñii ñëw. waaye ñii ñëw. sama kër taalul tey. ay kër taalul tey. fanaan fanaanul lii fanaanu fa tey. lii fanaanu fa tey. xam nga loolu neexul. mu ne borom kër. borom kër. jàkkaarloog sa njaboot sa njaboot. añuñ añuñ. mbaa reeruñ mbaa ndekkiwuñ. mbaa ndekkiwuñ. moom si bosam la koy xool suñu xaw su xaw a añ bi su xawee naaj ñuy daw diggante kër yi ñu commencé daw diggante kër yi xam nga jàllo xel ñi sant ba suñ ko déggee ñi sant ba ko déggee dañ ko sànnee kon njaboot yëpp benn la kon njaboot yëpp benn lañ kon nag bi état bi nañ jàppale baadoo lañ jàppale sonn nañ réew mi métti na réew mi métti na njëg yi seer na njëg yi seer na ku amul ku amul doo jot doo jot ah, am ku am mooy jot soo amee njëg bu néew soo bu néew doo jot doo jot Sénégal métti na de kon Sénégal métti na Bassirou Diomaye Bassirou Diomaye Ousmane Sonko Ousmane Sonko